yi ndigal bàyyi ko na fam daa bàyyi ko sëriñ Muntaxa Basiiru yàlla na fi yàgg lool te wér jaar ci sëñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke xalifab Seex Mouhamadou Moustapha al Karim ñëw ci sëriñ Moustapha Mohamed waaye nag ñëw ci sëriñ Seex Fental Seck xalifa Maam Rijaal ñëw ci nag ah Seex Rijaal Seck gëm Bamba borom sonn nu war bis bi nga xam ne si nag moom lay woote fii ci daaru xudduus ànd koog rakkam yu baax yi ci sama ginnaaw ak taalibeem yi ak mbooleem fu ahlu rijaalu nekk rek ci Sénégal ci biir réew mi ak bitim réew bi ngir lan bisub sëñ Amdi Seck rijaal jàmbaari Serigne Touba ji waaye duma ci sori Serigne Cheikh Amdi Seck rijaal moom leen ñu njëkk jox kàddu gi moom it mu wax ci kàddu yi nga xam ne si ni mooy bàyyi ko jëm ci euh, programme bi waaye buñ ci jógee danañ jël kàddu gi jox ko Serigne Sam Seck rijaal mu wax ci turu Serigne Cheikh rijaal Seck gëm Bamba. su noppee ñu jox bàyyi góor a xuma moom it mu wax lu jëm ci wàllu programme bi waaye su noppee dinañ jox soxna Bousso Diop Taïf waaye bu noppee dinañ jox nag sama yaay bopp nag yaa nday déggeen su ko defee kon ñun ñëpp ñu bokk déglu ah ki nga xam si ni mooy sëñ Cheikh Ami Seck Ridial bismillahi rahmaani rahim sadi lisaani nawil janaani safi amaani wasid brayi barki Seexul Xadim jërëjëf sëñ Sadda eh, ni nga ko waxee rek noonu la ah, ñi ngi jëm ci bis bu am solo ci ñun Euh, muy dajeeg ñaar fukki fan ñett ci weeru olof tombeek juróom ñaari fan ci weeru sulie weeru tubaab ñu ngi ciy woo ñëpp fii ci daar Xudoos euh, bis bi nag ni nga ko waxee programme bi lañ ci jiital mooy jàng euh, bu ñu xëyee huit heures et la ñuy tàmbali jàng alxuraan ak xasida ak salaatu ala bi ak sikkartul yàlla lu ci nit man rek di profité ci occasion boobu di soññ itam mboolem daaree alxuraan yi nga xam ni Euh, dañ daan am taxawaay bu am solo ci bis bi ak kuréeli xasida yi nga xamante ni ñu ngi fu nekk ci àdduna bi kenn ku nekk daan am taxawaay bu am solo ci kër gi kon ci bis bu mel nii kon ñu ngi ci fa ñu ngi leen koy fàttali di leen ci soñu euh, suñu xëyee nekk ci programme boobu ba midi euh, dinañ dallu daal def bernde yi xewlu suñu xewloo añ ba noppi ay tàkkusaan yooyu ñu daayira yu daje bu daayira yu daje def seen siyaar ñu siyaare sëñ bi suñu siyaaree sëñ bi ba noppi itam euh, euh, dinañ def gaajo muy galanu cosaan boobu euh, suñu defee gaajo ba dix-neuf heures vingt ñu daal di programmer vingt ba vingt-trois heures ñu reer minuit la ñuy def xam nga foofu itam dina am tuuti lu ñu fi leeral ndax cérémonie bi ginnaaw takkusaan la daan doon waaye ren sëriñ bi da ko puus ngir bëgg mu gën a yaatu ba minuit ba minuit ba minuit demi jëm une heure une heure demi heure boobu la ñuy def cérémonie bi suñu noppee Euh, ci la ñuy continuer tudd sikarullah turu yàlla wi góor ñi ak jigéen ñëpp nag euh, maase ko ba suba teel bu ñu xëyee itam ñu euh, mottaleeku gaajo gi bu fekkente ne daal ndigal dabuñu programme bis bi nii lay demee kon li ci des ñu ngi koy jël di ko jox sëriñ saa mi nga xam ni moo yor kàddu sëriñ bi di wax ci wàllu kilifa yi asubillah mina seytaan rajim wa in uisa bika wa zuriyataha mina seytaan rajim rabbi ansubika min hamasat sayatin wa ansubika rabbi an mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Ridial Seck gëmbamba Bamba ah, di leen jottali woote bi nga xam ne at mu nekk daf koy woote fii ci Daaru Xuddoos këram gu mag gi ni ko sëriñ Cheikh Ami waxee rek jëruñu ci dellusiwaat ci programme bi ah, Cheikh Ridial Seck Gëm Bamba eh, mi ngi ci sàkku ñaanu sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru mi nga xam ne moo fi sëriñ Tuubaa tey ca di ko ci woo ak mboolem ñu koy jàppale ñëpp waaye di ci sàkku ñaan eh, sëriñ Ahmadul Mokhtar xalifa Darou di ci sàkku ñaan Mbacke Madina xalifa sëriñ Mbacke Madina di ci sàkku ñaan sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma ak mboolem li mu yërif lépp ci njabootu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di ci sàkku ñaan sëriñ Cheikh Aliou Mbacke eh, ak mboolem li mu yërif lépp di ci sàkku ñaan sëriñ Cheikh Sikap Mbacke ak mboolem li mu di ci sàkku ñaan sëriñ Cheikh Waalo ak mboolem li mu yilif di ci sàkku ñaan sëriñ xaadim mbàkke coon mu sëñ dan xariloo ak mboolem li mu yilif di ci sàkku ñaan sëriñ xaadim mbàkke mu sëñ sëñ seex mbàkke mu sëñ xaadim ak mboolem li mu yilif waaye mi ngi ciy sàkku ñaan euh, sëriñ euh, euh, Moustapha Mbacke mu sëñ Fallou moom sëñ Mourou Moustapha ak mboolem lu mu yëlif bu noppee nag ndigal li mi ngi koy jëlee ci kilifaam sangam seriñam buntam ci sëriñ Touba di sëñ Moustapha Mbacke Mohamed mi ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam yokk wéram ba li mu yéene liggéeyal diine ji yéene ko liggéeyal askan wi mu tal ko man ko fekke ko ci ndigal loolu nag. Euh, ci lay ñëwee ci kilifteefu Serigne Cheikh Fental Seck Rijaal mi nga xam ne mooy tey maam Cheikh Rijaal ci kaw suuf di ko ñaal mu yàgg fi lool te ànd ak wér Cheikh Rijaal Seck nag gëm Bamba nee na euh, mi ngi ci soññi mboolem ñi mu bokkal pas-pas ci wetu Serigne Moustapha Mbacke mi ngi ciy jiital juróomi bànqaas yi mi ngi ciy jiital euh, Serigne Mbacke Gueye mi nga xam ne moo jiite mboolem doomi Cheikh yëpp. buñ duggee foofu nag da du mën a ñàkk mu tudd xaritam wala rem Serigne Cheikh Ndigal Fall di ko woo. xaritam wëllëram sëñ Mourou Kara Sylla di ko woo xaritam wëllëram sëñ Cheikh Lo Dëgmal di ko woo xaritam wëllëram sëriñ Sooda Guèye di ko waaye di di di di di di ci woo sëriñ mbooleem waa sëñ Cheikh Xarifaal xaritam eh, di ci woo mbooleem doomi Cheikh yëpp daal foofu tënku na eh, di ci soññi tamit bu baax a baax ay rakki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal ëttub maam Cheikh Ridial muy waa kër sëriñ Cheikh Fatim te njiit la doon sëriñ Cheikh Fatim di jëwriñam di xaritam sëriñ Amdi Seck Rijaal mi nga xam ne moo jiite mboolem daay rëy am di yi can am taxawaay bu am solo ci bis bi ñuy profité ci occasion bi di woo am di yëpp sëriñ Amdi Seck Rijaal moom di xalifa sëriñ Cheikh Diop Mourou Massamba waaye njabootuk sëriñ Cheikh Diop ruma Massamba gépp ak mboolem sët sëriñ Rijaal yëpp nag fu fi waaye mën a nekk ca dib sët wala nga dib taalibe wala ngay wala ngay xarit sëriñ Rijaal gëm Bamba mi ngi lay soññ ci bis bi ca di la ko yëgal ca di la ci woo bu delluwaatee ci mbokki pas-pasam itam bu jiitalee daayira doomi seex yi ba noppi eh, ci jiitul sëñ Bàkke Gay mi ngi soññi bu baax waa ansaaru diin di ñi nga xam ne ñoo yaakaar Serigne Moustapha Mohamed te féete bitim réew waaye waa dongee laxasaay jamaatul murid saadi muridina xiin ci njiitul Serigne Baara Lo waaye mboolem waa daayira Ahibahil Khadim bépp nag bu ñu dajee Serigne Baara Mbacke Mohamed di rakki Serigne bi di xaritam euh, maanaam jiite ko mi ngi woote ci turam di woote ci turu Cheikh Mbacke Dieng ak sëñ Moustapha Gadiaga waaye bu delluwaatee foofa tamit mi ngi soññ bu baax tey woo mboolem ñi nga xam ne rek ñoom la bokkal pas ci ci wetu sëriñ bi euh, sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne rakku sëriñ bi la waaye mi ngi koy woo ci gan beneen casquette tamit di président conseil régional ak mboolem ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jiite nguur gi yépp nag euh, bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn sëriñ yàlla gëm Bàmba daal nee na bis bii Euh, bis bu mu fonk la euh, muy bis bi nga xam ne nii ni ko sëriñ Cheikh Amy waxee ci date bi jërul ñëwaat waaye dafa tombeek màggaluk sëriñ Abdoulaye Lahat ku ne xamoon na diggante sëriñ Abdoulaye Lahat ak Cheikh Amdou Seck Ridial moom loolu moom kenn nattableetu ko euh, ku ne xam ne seen diggante ca bokk ga ca taalibe ga ca pas-pas ga ca xaritoo ba loola moo waral ñoom ñaar yàlla boolewaat leen ay mbir ba mi ngi koy defee ci këram gii ci Daaru Xudoos di ci woo ñëpp di ñëpp di gërëm ñëpp day baalu àq ñëpp day baalu ñëpp di dolli nag bu baax a baax soññiwaat waa Gerla Seck ñi nga xam ne ñoom la may Diallo nee na waa Gerle la may màggal gi ñoom moom lu ci waaye def ñoom nga ko defal euh, ci njiitul euh, Serigne Siri Kane ak mbooleem Gerle gépp nag bàyyiwut kenn alaaji Balla Ñang may chef de village ba euh, la wër Gerle gépp itam nag Sadio Taltal Todel Diaby 1 Diaby 2 Lulde ba ba ngay dem Bousra dem Kër Baay Cheikh gay ba ba ngay dem Daaru Minam Taïf ba ba ngay dem gasaan dellu siwaat Kër Baay Cerno dellu siwaat ba Kër Sëñ mosa fay ba na ngay ñëwaate maanam biir gerle ak la ko wër lépp daal sëriñ bi nee na dëkk buñ ci tudd ak buñ ci tudd rek nan xam ne maanam ñëpp la woo baywul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu di wax ci kàddu fédération mboolam daayira yi eh, di soññe màggaluk Seex Amdi Sekk Rijaal gi nga xam ni ñaar fukki fan lay doon ak ñett ci kori wi di doon juróom-ñaari fan ci weeru tubaab noo ci soññi mboolam fu waay mën a ne moo xam Sénégal la moo xam bitim réew la ñu ngi soññ waa Ndar di soññ waa Louga di soññ waa Ndakaaru Mbuur Kaffrine mboolam Tamba ak mboolam dëkk yépp ak Ziguinchor ak fu mën a doon di soññ mboolam waa Tuubaa seenug teel a teew ak teel a taxaw ci liggéey bi nga xam ni da koy laaj noo ngi ci soññ ñépp noo ngi boole di profité waale di soññi mboolam daayira yi nga xam ne nekk nañu ci biir Touba addi yi nga xam ni war nañ ko cee joxe tam war cee ñëw noo ngi leen ci soññaale itam euh, mu teew balaa màggal gee egsi euh, ku yëgal itam euh, président Idika regroupement gare routière bu Touba noo ko yëgal te di ko ci soññi di ci soññi Diagne ak Assis Touré sëñ Ablaye Diop ñu ngi ciy soññi itam Ibrahima Sow di ci soññi bayndooy mboolam waa garage bi bépp rek ñu ngi leen ci soññi te ji sàkku seenu teewaay ndax bis bi seen bisa fu waay mën a nekk daal euh, dib jullit noo ngi lay woo ci màggal ko Cheikh Hamdy Seck Ridial gii noo ngi sàkk ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo moom lépp tamal lépp itam képp ku fi teew yàlla na say aajo faju biir ak biti àdduna ak alaaxira asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbooloo ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu Soxna Awa Kane mi suñu jëwriñ di leen soññ ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy màggalal sëñ Amdi Seck Rijaar fii ci Daaru Xuddoos ci ndigalul sëñ Rijaar Seck gëmbaam Bàmba mboolem koo xam ne nii dangaa doon soxna feggoog sëriñ boo xam ne mi ngi ci biir kër gi muy sëñ bu mag bi muy rakkam muy ko mën di doon dañ lay soññ ci liggéey bëgg nga am ci taxawaay boo xam ne dina mel ni taxawaay ba maam jaara taxawoon ba am li ma bu kenn ni soxna awakan mooy jëwriñ ji bu deful lii duma def lii kenn ku ne daal na jàpp ni liggéey bi man mii lañ ko teg ci sama loxo maa ko war a seelal nan fas yéene sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee ñun mu ñu am li liñ bëgg ci sëñ bi sëñ bi am ngërëmul sëñ Moustapha Mohamed ñu am ngërëmam ci mbir mii lañ ko mën a sàkkoo li ñuy dund saa yu nekk bu ñu amee ndigal nañ ko gën a feddali suñu laxasaay ndax bis ñu mën di am ci àdduna rek bii moo gën a kawe ndax bi ñuy defal soo koo xam ne nii mooy suñu waajuru jëwrin waruñu ko yemaleek benn bis bis ñu mën di ñëw jàmbaar lañ ca waaye nan fooguwaat fas yéene def loo xam ne mosuñu koo def ci màggalu suñu am diri tàmbali ko ren fas yéene di ko def ba ilaa ajali musamman nan góorgóorlu ba nga xam ne sëñ bi du gestu benn yoon am ci soxna yi lu ko naqari ci waañ yi nga xam ne dakoo koo teg ci suñu loxo ñu berndeel gan ñi benn yoo xam ne mosu ñu leen koo berndeel am ci ndam lu kawe lañ ci daan am am ci ngërëmul sëñ Rijaal am ci ngërëmul sëñ Moustapha Mohamed di ñaanal sëñ Rijaal Seck gëm Bàmba mu am téeméeri at yoo xam ne ren la tàmbali di liggéeyal sëñ Moustapha Mohamed di am ngërëmam ñu ànd ak moom liggéey boobee ba saa yu neexee suñu borom li nga xam ne nii nag moom lañ yéene ci soxna yi mooy kenn ku ne rek na doon muritu Baay Faal boo xam ne kenn du mas a gis liggéey bi muy liggéey ak jëf ji mu jëf bu kenn xeeb benn butéel boisson wala benn palaat bu mën a seel dem ci ay gan nan takk suñ laxasaay fas yéene am ndam daan comme nañ daan daanee ndax ku ñu mas a fekk si ku ne yóbbaale nga ndam ci ñun waaye damay gën a soññee doonuñu ay yaafus waaye nan gën a lu gën a jàmbaare ndax soxna yi moom macha allah dañuy defar ba mu baax li tax ñuy defar ba mu baax mooy danoo ànd ak jëwriñ xam ne ku ne koy fekk si te sëñ Rijaal Gëmbaam kenn ku ne dégg na ko te ku dégg aw turam bëgg a gis jikkoom ak meloom boo ñëwee Daaru Xuddoos war ngaa mën a am loo yóbbaale soxna yi feggoo moom tim jàmbaar googu man mii nga xam ne maay seen jaamu sëriñ lool laa xam ci ñoom li ma gis ñu di ko def it damaa bëgg ñu gën koo yokk ca kaw ci kanam rek incha allah barke maam Rijaal Seck. barke Seex Rijaal maa ngi nuyu mbooloo mépp di leen baal àq di leen baalu àq di leen soññ ci li jëm waaye di leen sant ci li nu li nu passé mooy ndogu yi nga xam ne ni dañ ko daa togg di ko yóbbu ci ëttub sëñ Tuubaa bi nu defee ko nin ko bëgg ba sëñ Rijaal jox nu ci ndam sant nu ci gërëm nu ci kon li may soññawaat mooy bisub see xam di sekk Rijaal bi nga xam ne kii mooy jàmbaari daaru xudóos joo xam ne ku dëkk daaru xudóos xam nga ko ku ko gisuti dégg nga ko kenn la koo xam ne benn bàjjo la bu fi yàlla andi woon ci daaru xudóos mu daa fi def lu fi kenn defut daa fi wax lu fi kenn waxut dimbali doom aadama yi ku mas a jàq daw wut si see xam di ku mas a jaaxle daw wut si see xam di te ku ko dis sa yitte mu fajal la ko kooku nag am na pay ñi may wut bor daa am pay nan ko fay nan ko jox njukkalam maa ngi soñu kuy jigéen te nekk Touba Mbàkke mbaa nga nekk ndogal mbaa foo xam ne nii dongab sëñ rijaala nga fa maa ngi leen di soññ nan am pas-pas fa fas yéene teeru waa gerle bu ndikkee nu ànd ak ñoom nun ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba bis bi nu daa ko defee gerle ñu dem ba yàlla indiwaat ko Touba ci suñuy loxo nun ñi dëkk Touba noonu war na noo takkuwaat laxa saayuwaat heure bi nga xam ne moom lan joxe képp koo xam ne tardé nga ko def nga di nga fay alamaan wala doo dugg ca waañ wa ndax waañ wa nun ña nga xam ne dugg nañ ca te am pas-pas ak takku ku ñëw nu def ku ñëwut nu def fas nan ko yéene ñaan nan ko Seex Rijaal Sekk nan ci góorgóorlu berndeel ki nuy màggalal nag ku jara màggalal la ku xam bernde ku bëgg bernde la ku daa berndeel ku ne la kon nan ci takku am ci jom am ci fulla am ci fayda jinu daa def ci ndigal lum nu jox nan ko jàppe wan ci ndogu yi nan ko jàppe ma bis bi bis bi yomb naa ñaari fan la mbaa benn bis kon ko am jom rek war ngaa mën a teel a ñëw maa ngi woo ñëpp ah, jërë ngeen jëf mbokk yi kon bis baa ngi noonu dégg ngeen kàddu yi nga xam ni moo bàyyi ko ci kilifa yu tedd yi toog nii ci ndigalul Baye Ridial sek gëm Bamba sama waa ji soppey Baye Ridial Seck yi nga xam ne nag ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew mi ñoom it ñu ngi leen ciy woo waaye nag ku ne xam ne nag bés bi nag ah kuy rëbb da nga nuroog rab ya sonnuwaar yi na ñëpp waar ñun ñëpp ñu àndandoo dugg ci baas bi waaye nag saan gi nag gaajo gi nag yàlla na nu pënd ba solo kum solo moo gën kum solo wut Baye Ridial Seck gëm Bamba daal nee na ku dem ma dem ku demul ma dem ndax yoon wi kat jëf la kon nag gaa yi nan jëf sëñ Cheikh Saa waa ji nee na nan ñaq nan ñukk nan yu fii nag ku fi ñëw sëñ am di sekk rijaalu laay fat la ci sëñ am di sekk rijaal nag ku mu fat ah sëñ Modou Moustapha fat la sëñ Modou Moustapha ku mu fat sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma fat la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku mu fat sëñ Moustapha Mouhamed faj la jëli mi ci loolu alami ci ndaam Baye Rijal Seck nee na ku fi ñëw yàlla na nga dajeeg ngërëmal maam Rijal Seck ma nga xam ni moo amoon garaatug rijalullahi ci keppaarug Seexuna Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu